اللهم صل على محمد سيدنا محمد أمني مصطفى الحاج شيخ مكة للوياك سيدنا صل على محمد صل على محمد سيدنا محمد الله يجمع جميع الهادي مكة يا auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi leen nuyu baax di leen siyaar waaye di jiital ci nuyoo bi rek xalifatul am li tayfatul muridiya ñaanal ko fanu gudd ak wér-gu-yaram ba mu dund ba yéenam ci ko tedd ki ñaanal ñëpp rawatina taalibe yi ñu ci liggéey boobu te sëriñ bi nangul nu ko ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen siyaare ci weeru tedd wi nga xam te rek weeru koor bi la tey jii rek ñu nekkoon ci fukki fan yeeg juróom-benn wax dëgg yàlla di eh, weeru ngëneel weeru yërmande eh, nga xam ni daanaka wax dëgg xaaj bi dem na mu mel ni kon dafa mel ni li des moo gën a néew hmm, sëriñ bi nag daana def bu weer wi bëgg a tàggoo ndeysaan ñu ni daawut ànd ak sagoom naan kenn talutul dara kenn talutul dara ndax gan gi waa ji ñibbi loolu nag daanaka jar na jàngat bu baax a baax ci ñi nga xam ne dañ naan. na dem ak jàmm maanaam kon wuti maanaam wuute na lool pas-pas yi wuute na e, tey jii rek kon bi ñu jógee ci fukki fan yeeg juróom-benn ñuy waajal incha allah suba ak jàmm fukki fan yeeg juróom-ñaar e, te taarix bu mag na ci taarixu bu lislaam ndax xam ngeen fukki fan yeeg ñaar ci weeru koor moo doonoon bisu xare badar di xare boobu nga xam ni lislaam du ko fàtte mukk ndax ndam la ci lan ci am ci la lislaam daanaka taxaw. ci ñoo xam ni ñetti téeméer lañ woon ak fukk ak ñett jàmmarloog junni yéefar yoo xam ni leen yor ci ngànnaay leen yor ci yu mett euh, waaye teewut seen pas-pas ak seen ngor ak seen fulla ak seen fayda ak seenu ngëm yóbbu leen ba ci ndimbalu suñ borom ñu gañe xeex boobu moo tax tey ji lislaam mën a wéy kon nag ñooñi ñoo ngi leen di ñaanal suñ borom doolu leen yërmande waaye képp kuy dégg sama kàddu ñoo ngi lay yelwaan nga ñaanal leen euh, barkeelu ci ñoom ndax ñoom borom yi nga neel leen ay shahid lan ndax ci jihaad lañ seen bakkan rote te jihaad ji maanaam xam ngeen ni jihaadul islam la ba tax na euh, xam naa ni xasida gu ci waay jël rek da nga tàbbi ci ñaan googu ndax ku tedd ki moom fépp fu mu tuddee sangam bi rek di yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam tudd na fa saaba yooyu nga xam ne nee na ay ay biddiw lañ waaye ñoo xam ne lañ fiti gaynde lañ yor waaye ñu laabir leen ci seen biir eh, kon loolu mooy li nga xam ne rek mooy taarix bi nu bëggoon a andi muy nii eh, bisub suba bi incha allah daal mooy fukki fan ak juróom-ñaar di bisub xare badar bu ko defee rek ñu baaxoo liñ baaxoo indi muy tom bi sunu sang sunu sëriñ sunu wësale sunu yaakaar Cheikh Ahmadul Xadim nee na am na pays boo xam ni yetti yëf rek laa fa fekk ñàkk ba noppi tabe wéet loo bëgg maandu ca atte sab xarit ci dëgg nee ñett yi ñooy tijji pay ba kon pay ba dafa mel ni barab la boo xam ni ab bunta fa ne te bunt ba ñett yi ñoo koy ubbi maanaam képp ku làmbool yi jikko nee na boobu pay kon dafa mel ni da boobu pay moom mënoo caa yegg mënoo koo ubbi te ñett yooyu mooy ñàkk ba noppi tabe wéet loo bëgg maandu ca atte sab xarit ci dëgg nee na ñett yi ñooy tijji pay ba Euh, ñàkk ba noppi tabe de xam nga ni euh, suñ borom bëgg na koy joxe waaye ki ko gënal mooy ki ñàkk ba noppi ta gën a tabe ndax euh, léeg-léeg nga dégg fi ñoo xam ne dañ naan diw de def na nangam ci màggal gi def na nangami million ci màggal gi nga ni man de bu ma amoon ni million dinaa ko ci def fekk ñi ngi laaj ci sa wet ñaar téeméer nga yor ñaar téeméer mënoo koo joxe amoo xolub joxe ko kon yaakaar naa boo yoroon million yi doo ko def wéet ak loo bëgg maandu ca bari na nit lu muy fegu ci biir mbooloo bu wéetoo nag moom jëfandiku ca loolu moom kiimaan la eh, atte sab xarit ci dëgg nag mooy ki ñëw wax la te di xarit bu nekkee ci njubadee da nga ko naan lii nga nekk du noonu loolu mooy atte sab ci dëgg waaye bu ñëwee wax la rek dégluwoo ka ca des xamoon nu mu demee nga daal di atte njuumte mën na caa am kon nag eh, sab xarit lu mu doon doon sab xarit boo gisee loo xamante ni dalay leer ni ak njuumte ma nga ca da koy laabire wax ko ko euh, bu ko defee ñu andi euh, wenn bayit rek ci woyi sëriñ bay jaxate moom mi ngi ko jëmale ci xarit nee na xarit dalay xaralus lëf ca yëfam ni la am koo xam ni kii du xaras lëf may la doo waayam euh, ko nee na xarit dalay xaralus lëf ci yëfam ni la am koo xam ni kii du xaras lëf may la doo waayam kon loolu ñu def ci jàngat bu baax ma bàyyi ko ñi nga xam ne rek danañ xelu ngir mën ci eh, génne lu leen jariñ bu ko defee rek kon ñu dikk ci naafil ak tey gi di guddik fukkeel geeg juróom-ñaar ci weeru koor eh, ñu jëm kon ci bisu fukkeel beeg juróom-ñaar mu ngeen bàyyi xel kon xare badar bi ma leen waxoon ni ëllëg lay doon incha allah guddik fukkeel geeg juróom-ñaar ci weeru koor boo demee ci xóorutul ay ni di téerib sëriñ Sooy Mbàkke radiyallahu taala anhu wax na ni képp ku ko yàlla mën loo boo mënee julli fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk rek nga jàng faatiya ak ñaari ina anzalnaahu fii laylatil xadri ak ñaari lixlaas loolu nee na boo ko defee dana la bindal tuyaaba ju toll ni li mu ka njëkk gëm yàlla ba ka ko mujj gëm dan maanaam boo tawatoo nit da nga wér boo amee woon bor suñ boroom dana ko fay bu nekkoon ci njàqare itam des na wuññi njàqare la te des na ko musal ci sawara nag loolu am na solo loolu ma baamuwaat ko guddi fukkeel gi ak juróom-ñaar ci weeru koor képp ku yàlla mën loo ba mën a julli fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk rek nga jàng faatiya ak ñaar yi ina anzalnaahu fii laylatil qadri ak ñaari lixlaas loolu nee na boo ko defee suñu borom denal bindal tuyaaba ju toll ni li mu ka njëkk a gëm suñu borom ba ka ko mujj gëm waaye boo tawatoo nit da nga wér boo amee woon bor suñu borom dana ko fay waaye bu nekkoon ci njàqare tam suñu borom dana wuññi njàqare la te des na ko musal ci sawara kon ñoo ngi leen jégg lu baax di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal tawféex yal na suñu borom wàcc jàmm jullit ñi wàccee tawféex jullit ñi baaxuñu xéewal sutura teranga ak wërsëgu lew ak njaboot barkeel barke Serigne Touba barke maam Cheikh Rafal ba ma dina ñoo ngi sant bu baax ñun àndaloon ci xarala gi Serigne Mamadou Mbaye Thiam Serigne Aline Mbuub jëf jës bu sëriñ Papa Gueye waaye ziare kii nekkoon ci décor bi rek di sëriñ Naar Mbay ñoo ngi leen di ziare bu baax di leen bal wax kon ba subaak jàmm rek incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kama salli ala muhammad sayyidina muhammad amni mustafa alhaji cheikh makke محمدا Bamba salli ala Muhammad sayyidina Muhammad alay sama jana alhaji Cheikh Mbacké la nu yaakaar